incha allah ñu ngi war a jël aaya juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ki suratu nahl aaya quatre-vingt-huit ki suratu nahl allazina kafaru wa saddu an sabilillah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéwalam yu bari yi bokk na ci ay fan yu néew réew mi yépp tiitoon nañu ci xew-xew bi fi war a am dimanche sunu boroom ci ay ngëneelam def na ci la nga xam ne mooy jàmm jàmm jooju ñi ngi ko ci sante di ko ñaan yal na ko yàlla saxal yal na yàlla may ñu jàmm guy dëppoo ngërëmam guy tax ñu man koo jaamu jaamu goo xam ne nii jaamu gu mu gërëm la ñi ngi koy ñaan it mu julli ca sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne julit bi war naa xam ne jàmmam dëgg mooy mu juboo boroomam roy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ni it ne lépp loo mën a nekkee ca du gëm yàlla gu sell du dëppook sunna nekkoo ci jàmm même bu doon ca biir palais maison blanche la ak lu mën a doon loolee kon ñu góor-góor li jëm cee góor-góorlu ñaan yàlla subhanahu wa taala saxal ñu ci kon incha allah ñi ngi war a jël juróom-ñett fukkeelu aaya bi ak juróom-ñett ci suratu nahl الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
sunu borom subhanahu wa taala day wax ni allazina kafaru ñi nga xam ne day dañoo weddi wa saddu an sabilillah ñuy fegaate ci yoonu yàlla ñu mel noonu day zidnaahum azaban fawqa al azab dañ leen dolli lii di mbugal ci kaw mbugal bima kaanu yufsiduun ci li nga xam ne nekkoon nañ ca di yàq wa yowma nabaasu fi kulli ummatin shahida bis ba nga xamee ni daan génne ci bépp xeet aji seede shahidan alayhim min anfusihim seede buy seede ci seen kaw mu bokk ci seen bakkan wa jinaa bika shahidan ala haula yow yonent bi ñu indi la ngay seede ci ñii nga xam ne ñooy sa xeet wa nazzalna alayka kitaaba tibyaanan li kulli shay xamal ne it wàcce nañ ci yow téere bi muy aji leeral ñe lépp lu mën a doon wa hudan wa rahma mu nekk njub nekk yërmaande wa bushra lil muslimin waaye nekkit la nga xam ne mooy bég ñel ñi nga xam ne nii dañoo gëm seen boroom jébbalul ko mbokk kon sunu boroom day wax ne jaamam yi am na ci ñoo xam ne weddi nañu yemuñu ca weddi waaye ñi ngi fegaate ci yoonu yàlla loolee mbokk daf lay jàngal ni doomu aadama yi ñeenti façon doomu aadama lañu am na ci kenn koo xam ni ab yéeféer la waaye toppatoowul leneen lu dul dund addunaam kookee lam nekke bu ca tuubul ci mbugulu yàlla subhanahu wa taala lay sax xaalidina fiha mu am na ku ko yées mooy koo xam ne non seulement moom yéeféer la waaye nee na diina du fi taxaw mi ngi jóg guddeeg bëccëg ngir fay diine ñu mel nii la sunu borom ne yowmal qiyaama mbugal ma muy mbugal yéeféer ordinaire moom danaa ko jox ñaareelu mbugal bu ma ko cay tegal ca la ñu nekkoon di ko yàq loolu mooy wàllu gu jëkk gi doonte ne ni mbokk loolu màndarga yéeféer la waaye jullitit fexeel sa kemtalaayal kàttan bul nuru nuru lu yéeféer ci loolu ca mooy tere nit ñi ak jaamu yàlla masalan tey da ngay gis ay xale yu jigéen yu jóg bëgg a muuru seen way jur yoo xam ne ay jullit lañu na leen du ngeen fi muuroo ndax loolu mus leen ko dégg ah kay wallaay passé na foofu xam nañu ay xale yu jigéen yoo xamee ni nii muuraay googu ñu doon def tax na seen bàyyi génn leen këram man mii dox naa ci ay jéego yu bare bare bare bari am na xale yu jigéen yu ñu yëg ñu jàpp leen ci néeg dóor ba ñuy bëgg a dee ci ne da ngay dindi sa muuraay ndax ña koy def ay catholique lañu wala wala ay yéeféer laa ay julit lañu loolee mbokk da ngay gis ne ña koy def la ñuy jàpp mooy bañu ñu sax lislaam mais ñàkk xam la ñuy def mooy jàpp nañu ne muuraay googu ibaadu yi ñoo ko moom kon sama doom du fi nekk ibaadu waaye mbokk njuumte mënul paase loolu sunu borom moo wax ci téeréem bu tedd bi yow yonent bi waxal sa doom yi sa soxna yi ak képp kuy doomu julit na ko na muur awraam loolu dëgg la am déet kay tey jii da ngay gis ñoo xam ne ay julit lañu gis benn waay na man kat damaa bëgg a roy sunna bàyyi sama sikkim waaye fu mu toll ñu ko tey saboote ba mu far ko wat ndax gaa yi ñooñu feguñu nit ñi ci yoonu yàlla da ngay gis góor goo xam ne moom demul jàkka demaanul jàkka waaye gis doomam dem di julli ji ca jàkka ja mu indil ko ay xat-xat tere ko jàkka ji wallahi xam nañ ko wallahi xam nañ ko ñoo xam ne nii teg fekk seen doom ci ci jàkka yàlla ja yii yépp mbokk da ngay gis ne na am yéeféer yi la yàlla di waxal mais jurit ñu bëri ñi nga am màndarga yéeféer foofu ñu góor góor lu bàyyi ci xel islaam li nga mënagul a def doy na ci musiba yow jurit nga xam ne lii yàlla ko santaane ci mën a goo ko def ngay ñaan yàlla def ko amaa nag ña koy def nga leen koy tere wala di leen ci critiquer ba décourager leen ca loolee moom musiba mënul passé loolu ñooy ñaaru nit ñi yées ci nit ñi yeneen ñaar yi mooy kan julit bi nga xam ne mi ngi diineem xëy suba liggéey ut lum dundam ak njabootam wasalaam kookee ku baax la waaye nag nañ xam julit ba ko gën mooy julit ba jóg di jihaat ngir kaddu yàlla jëm kaw di joxe alalam di wax di dugg di génne di woote fu mu mën a toll bureau ba la marché ba la kum mën a xam heure buy waxtaan ak yow dana la wax loo xam ne da lay delloo ci diine kii mooy ka nga xam ne mooy ki gën ci doomu aadama yi yàlla na yàlla boole ñu ci wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah ku gën a rafet kaddu kiy woote jëme ci yàlla lii mbokk dañuy gis ne sunu borom kon mi ngi wax ak ñi nga xam ni ñooy yàqkat yooyu borom bi amul temps temps mooy li fi xewoon démb li fi xew tey ak li fi nar a xew ëllëg loolu ay mbindaa fanam ñoo ko am amma moom sunu borom li xewoon démb un million d'années ci gannaaw ak li xew tey ak li nar a ñëw lépp yem ci moom loolu tax mu lay nettali bis penc mi ngi noonu comme tey bu doon da ngaa dem fekke ko borom bi mu ne dana dajale xeet yi xeet bu nekk mu génne ci ñoom aji seede xawmu nuux ñëw xawmu huut ñëw xawmu saalix baba isa bnu maryam ñëw baba muusa ak ñëpp ñëw gannaaw ba nag mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam yow danaa la indi ngay nekk aji seede ci xeet bi di looloo tax yàlla yónni ko di inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa nazira ngay aji seede témoin lan la yonent bi di témoin keroog mooy yàlla lan ma waxoon pour ñu war la ko jaamoo jottali naa leen ko gis ngeen bu ko defee nit ñi baax ñi ci xeet bi yépp seedeel ko ne jottali na malaaka yi seedeel ne jottali na te loolu témoignage boobu yonent bi sàkk woon na ko keroog ba muy aj ajam gu mujj ga lu jege téeméeri junni ak ñeen fukki junni ci ay julit wër ko mu ne leen ala hal balagtu ndax jottali naa ñoom ñépp ñu ne ko jottali nga looloo tax boo ko doon ziyaara tey bokk na lu rafet ci loo koy ñaanal gannaaw ba nga julle ci moom nii ko nga ne ko nashhadu annaka qad ballagta risala wa addayta al amana wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaqa jihaadi jottali nga la la yàlla yónni woon motti li nga joxe nga kóolute ga yàlla tegoon ci sa loxo laay nga biir xeet bi ah léegi nag yonent bi kon sa jaan wàcce na fa innama alayhi ma xumila wa alaykum ma xumiltum léegi nag xeet bi moo ci des ku nekk nag ñu xool say jëf ndax dëppoo na ak jëfi shahid bi xaw ma nuux ndax li ngeen jëf dëppoo na ak la nuux indi ay yéen yahud yi ndax dëppoo ngeen ak Muusa ay yéen julit ñi ndax dëppale woon ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaa yi bu keroogee ak neexoon nga mooyoon àdduna ak li ci biiram ba ñu dajee sëkk waaye say jëf dëppoo na ak jëfi yonent bi am nga ngërëmal yàlla ci àjjana xaalidina fiha yal na yàlla boole ñu ca waaye koo mënoon a jëfee ndigalam koo mënoon a roy koo mënoon a topp bu ñu vérifier say jëf mu safaanoo jëfe yonent bi salallahu alayhi wa sallam yowma idin yawaddu alladina kafaru wa asu rasula law tusawwa bihim al ard doon nga bëgg ñu xar suuf maasale la ak suuf te aaya bi jooyloo woon na yonent bi salallahu alayhi wa sallam te mooy aaya bi mel na moom ci suratu nisa comme ni ngeen ko yàgg déggee mi ngi noonu bakaka ki nga xamee ne nii moom mooy abdullah ibn mas'ud doon jàngal léegi nag borom bi subhanahu wa taala bi mu paree ci lii mu ne yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam man maa wàcce ci yow téere bi téere bi nekk di leeral lépp lu mën a doon ay mbokk lépp lu ñuy aajowoo ci sunu jaamu yàlla xam leen ne alquranul karim leeral na ko amul lenn looy gis ci sunna lu dul la koy déggal dafay ñëw ci téereb yàlla bi te sunna boobu moom la yonent bi alayhi salaam wax ci moom la ñu wàccee alquran loolee daf ñuy jàngal ne xeet bi lan moo leen war mooy sami'na wa ata'na dégg nañu topp nañu yàlla leeralal nañu nom gën a rafete suñ digganteeg moom nuñ ko war a jëfe jaamu ko buñ ko bokkaaleeg dara yàlla leeralal nañu nu ñuy jëflanteeg suñuy waajur yàlla leeralal nañu nu ñuy jëflanteeg ku ñuy liggéeyal ak ka ñuy liggéeyloo suñuy dëkkandoo nu ñuy jëflanteeg yéeféer yi nu ñuy jëflanteeg lu nekk soo delloo ci sunna yenente bi leeral téere yàlla bi sunu borom mu ne ma farat naa fil kitabi min shay amul lenn lu yàlla bàyyi ay tibyaanan li kulli shay na am sunu boroom léegi nag lan moo tax téere bi wàcc am na koo xam ne jàpp ne ni téere bi dañ ci war di seete ma gaa yi ndax xam ngeen am na ñuy seete alquran wallahi da ngay ñëw wax ko sa soxla mu daal di jël téere bi daal di ubbi ne la tegal sa loxo nga teg sa loxo aaya ba nga teg sa loxo te la lay wax sa avenir nu muy demee ndax xam ngeen am na ñoo xam ne jàpp nañu alquran luñ koy war a doyee mooy damaa war a sanc sama kër naa wàcce alquran ñeneen ñi lu ñuy war a doyee alquran mooy def ko liggéeyukaay mooy groupe wàcce kaamil ñu leen di fay cent mille ak cent cinquante mille waaye mbokk alquran la taxoon mu wàcc sunu borom wax na ko benn mooy code la ngiree nga dund dund gu yàlla gërëm ci kaw suuf muy hudan gannaaw ba su ngeen ko dundee lu leen cay jur mooy yërmande alquran léppam yërmande la xatta la gën a tubaab yi sànq yi tudde barbari mooy nit ki rey nit ñu koy rey barbari la lan la sunu borom wax walakum fi lxisaasi xayaatun ya ulil albaab ku rey ngeen rey ko ca ngeen di amee dund ko tey demal nga xool tey ñi gën a défendre li ñuy tuddi démocratie muy États-Unis nga xool la fay dee lañ fay rey par rapport ak Arabie saoudite bi àttewul islam kon la nga xamee ne mooy taxawal atteb yàlla loolu rek mooy yërmande gis ngeen loolee kon la sunu borom wax na rahma la waaye it bushra mu nekk loo xam ne day bégal julit ñi ci ne jafe-jafe bu ñu mën a am ci àdduna it la ñu yàlla dencal ci àllaaxira loolee yiw la di yiw woo xam ne nii yal na yàlla subhanahu wa taala bañ mu ëmpañu te mooy aljanna mi ngi noonu إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تستخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne inna allaha ya'muru bil adl seen borom yàlla day day digle maandute wal ihsan ak rafetal wa itaa'i zil qurba ak jox aji jege ñaale ya wa yanha anil fahsha day tere lépp loo xam ne ñaawteef la wal munkar ak lépp loo xam ni lu bon la lu yàlla tere la na doon ndigal loo deful wala tere boo def muy munkar wal baxyi day tere ak tooñ te mooy bew ci kaw nit ñi lii lépp yaizukum laallakum tazakkaruun seen borom mi ngi leen ci xuppe di leen ci waare ngiree ngeen doon ñuy fàttaliku wa awfu bi ahdillahi ida ahadtum ngallawaay matal leen digg yàlla bi su dee da ngeen a diggante wala tanqudul aymaana baada tawkidiha bu leen firi seen ngiñ yi gannaaw ba ngeen ko feddalee wa qad jaaltum allaha alaykum kafila te fekk def ngeen yàlla mu nekk koy garanti loolu muy kiy seede lool di ko gàddu inna allaha yaalamu ma tafaluun yàlla day xam ne lépp lu ngeen di jëf wala takunu kallati naqadat gazlaha bu leen mel ne ka nga xam ne dafa firi rabbam ga min ba'di quwwatin gannaaw kattan gam ka feddale an kaasa mu firi ko ak firi nag tattaxizuuna aymanakum ngeen jël seen giñ yi daxalan mu nekk ak worante baynakum ci seen diggante an takunu ummatun ngiree am na benn xeet hiya arba boo xam ne moo gën a kawe min umma ca beneen xeet ba innama yabluukum allahu bi xam leen ne loolu yàlla rek moo leen cay nattoo wala yubayinanna lakum yowma alqiyama te des na leeral ñeel leen bisu yowma alqiyama bisu taxawaay ba ma kuntum fihi taxtalifuun la nga xam ne nekkoon ngeen ci di ca juyoo walaw shaa allahu la jaalakum ummatan wahida su neexoon yàlla yéen ñépp mu dajale leen def leen benn xeet walakin yudillu man yashaa waaye mooy réeral ku mu sob ci ay jaamam wa yahdi man yasha mooy jubal ku mu sob ci ay jaamam wala tusalunna amma kuntum taamaluun waaye sikk amul ci ne dees na leen laaj lépp lu ngeen nekkoon di ko jëf mi ngi noonu mbokk sunu boroom aaya bi nekk ci bopp li ñuy mujj a jàng inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan mooy aaya bi gën a matale ci téere yàlla bi ajmaul aaya fi kitaabillah mooy aaya bi ñu jàng aaya bi matale bépp ndigal bu baax ak bépp tere mi ngi noonu bari na ngeen dégg imam yu bari di ko tëje seeni xutba doonte ne malheureusement comme ñun dégguñu en lammiñu arab imam yi dañuy ñaan ba ci fin bi ñu tëje ko ñi ci jumaa ji yépp dañuy soog ci ñaan gi la bokk rek inna allaha yaamuru bil adl wal ihsan amin wa yanha anil fahshai wal munkar amin gis ngeen xamuñu loolu waaye loolu mi ngi jóge woon ci omar ibnul abdul aziz xam ngeen islam ay jaar jaaru fitna am na fi xeex doxoon na diggante bani umayya mooy fa maawiya bokk ak omar ibnul abdul aziz boobu ak ñeneen ak bani hashim muy ali ibn abi talib ak ña ànd ak moom yàlla dogal gañu nañu ali jàmmoo am na waaye teewul am na yenn ci buuru bani umayya seen imam ya leen doon défendre bëgg lu leen neex suñ ma sàndi xutba ba xutba bi jeex dañuy rëbb ali rëbb njaboot ya ya ànd ak ali loolee dem ba omar ibnul abdul aziz ñëw jël ngóor gi ba mu xutba ba yegg si fa gaa yi doon rëbbe ali mu daa di ne inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itai zil qurba ila axiri mboolem yépp gërëm ko loolu tax imam yi di koy wax ba ila yumina haza lan la aaya bi di firi sunu borom daf ñu ci digal ñetti mbir tere ñu ci ñetti mbir mbir bu jëkk bi ñu yàlla digla mooy maandute lan mooy maandute mbokk mooy ku ne nga jox ko ak xam loolu mooy maandute kon maandute sun diggante sunu borom mooy lan mooy ñu jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara ngi noonu waa ji yàlla bind wërsëgal ko dundal ko mu tol na baayam bu fuddoon a jërëjëfe sëñ jiw buy sant keneen lay sant ku ku dul yàlla ndax kii maandu na wallahi maanduwul kon maandu bi jiitu suñ digganteeg sunu boroom nañ ko jaamu bañ koo bokkaale ak dara gannaaw ba maandu te bi dox suñ diggante ak suñuy moroom yow da ngaa jiite fami maandul ci seen diggante say doom maandul ci ñoom say soxna maandul ci ñoom yow mi jiite nguur maandul yow mi jiite en société lu mën a doon la yàlla digle mooy ak maandute inna allaha yaamuru bil adl mooy ku nekk ak ba mu yeeyoo nang ko jox ak boobee te loolu mbokk da ngay gis ne mooy taxoon ba lislaam am ndam bi mu am looloo tax équilibre boobu asamaan ak suuf taxaw ba tey gis nañu ne abdullah ibn rawaha ba yonent bi alayhi salatu wasalaam ubbee xaybar mi ngi noonu daa di koy yónni foofu mu nekk fa benn gérant ndax waa yahuti xaybar yi dañ ñëwoon yonent bi léegi dañu bëggoon nga bàyyi ñu ak tool yi ñu bay ko chaque année ñu séddoo ko nga jël sa wàllu ñu jël suñu wàllu yonent bi d'accord ak ñoom ci loolu daa di leen di yónnee abdullah ibnu rawaha bi abdullah ibnu rawaha ñëwee yahudi daa di koy teral daa di koy jox ay yu bari xéewal yu bari na ko daal dañoo bëgg rek ah nag wax dëgg nga bañ a booy booy séddale nga jaarale mbir mi ci yoon abdullah ibnu rawaha ne leen jël leen seen teraanga xam nga lu ma leen di yëgal maa ngi jóge ci kii ma gën a bëgg ci jaa ci jaami yàlla yi mu yonente muhammad alayhi salaam maa ngi ñëw ci ñi ma gën a bañ ci lu yàlla bind demoon ci ay mbaam xuux golo mu ma gën ñëw seen dëkk bi waaye maa ngi leen di seedeel bëgg gi ma ko bëgg ak bañ gi ma leen gi ma leen bañ du tax mukk ma jeng jëm ci moom abadan gis ngeen gaa yi lii mooy maandu te su ko defee lii mooy amul deux poids deux mesures ci nguurug l'islam omar ibnul xataab radiallahu anhu ci jamonoom benn kii nga xam ne ni mooy omar ibnul as nga xam ne sahaaba bu mag mu ubbi égypte mi ngi noonu ba mu demee am na benn doomam ñu doon def benn course benn ci doomu baadoola yi raw doomu amar ibnul abdul aziz waa ji mer rek daal di koy cravaché ci kanamu nit ñi ah baay bi yéeg na ko waxu ci dara mu daal di dem ba madina boole ko ak amirul muminin omar ibnul xataab radiallahu anhu omar daal di bind lettre omar ibnul as ci égypte na ko dama bëgg nga aj si màkk te booy ñëw indaaleel sa doom diw daal dina xale bi na nga ñëw aj si màkk bañ ñëwee bañ aj ba pare omar daal di kay woo na ko ana sa doom ji mu ne ko mi ngi nii mu ne ana ngóor sàngam mu ne ko mi ngi nii mu ne ko kaay di kii mën a duma woon ci kanamu nit ñi mu ne waaw mu jox ko yar bi mu dara nu ko dumal waa ji di dóor di dóor omar naan ko dóoral muy dóor ba mujj mu ne ko dëgg sama xol sedd na mu ne ko sa xol sedd na mu ne ko dumal bàyyam bii mi ngi noonu omar ibnul as mooy gouverneur Égypte duma ko do xale bi na ko déet man kii moom ma tooñoon mu ne ko li tax mu tooñ ne bàyyi mooy gouverneur bu bàyyi dul gouverneur gouverneur du ma tooñ duma ko mu ne ko déet amir bàyyi ma noonu rek gars yi li mooy maandu te am déet loolee kon mooy la nga xamee ni nii ku nekk ci diini l'islam nga la waay xamel ni inna allaha yaamuru bil adl sa ministre d'état bi la gën a jege ak baykat ba nekk ci Kédougou moom nga war a yemele sa ndey bi la jur ak ka nga xam ne dafa jóge woon fu mu mën a doon heure booy atte na ngeen atte ci dëgg du loolu yàlla wax day walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin du loolu yàlla wax même dëgg bi dal sa kaw même bi dal say wayjur même bi dal ku la gën a jege na ngeen atte ci dëgg inna allaha ya'muru bil adl gannaaw bi yéen mbokk inna allaha ya'muru bil ihsan rafetal rafetal bi jëkk mooy sa diggante ak sa borom nu ñuy rafetale suñu diggante ak suñu borom moom la jibril alayhi salaam waxoon yonente bi mooy ngay jaamu yàlla comme yaa ngi koy gis soo ko gisul nga xam ne foo mën a nekk yàlla ngi lay gis gannaaw ba rafetal suñ diggante suñu boroom mooy lu ñuy defal yàlla ñu rafetal ko julli yi koor yi aj yi lépp waaye rafetal diggante gi suñuy moroom ka ca jiitu mooy wajur yi wa bil walidayni ihsana gannaaw ba yonente bi alayhi salaam wax nañu xatta buñ demee bay rey rafetal leen ni ngeen di reye yéeféer bi nga jekku muy noonu yàlla noonu yonent yàlla yonent bi ne bu ngeen koy rey rafetal leen rey bi te mooy la yàlla wax ko darba riqaab amoo droit di ko dóor ci kanam wala lu demee noonu mu ne même bu ngeen dee rendi waaw gaa yi xar mi dañ koo war a rey daggate ko fees ko dugal ci kaw jër gi xanaa kay yow mën ngaa wax ne kii nuñ ko mën a rey baax na am déet mu ne dee leen fa ahsinul zibaha rafetal leen rey gi na ngeen ko dalal daas paaka bi moom ñëw gaaw ko rendi ndax islam inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay lépp looy def rafetal ko yow la menuisier rafetalal sab liggéey yow masoo bi tabax kër gi bu ko dabb daaxee ëllëg nga dee mu daanu ci gannaaw ay nit rey leen fekk yow yaa nga laaxira rafetalal sa liggéey yow mécanicien bi yow képp koo xam ne yaa ngi liggéey lépp loo féetewoo ci kaw suuf nga la waay rafetal ko yàlla dafa bind rafetal ci lu mën a doon gannaaw ñetteelu ndigal bi mooy ita isil qurba jox la nga xam ne mooy say jegeñaale mbokk julit doomu aadama bi wala fi dañ naan diw ak a baax ñu ne ah baa mbokk yaa ko wax ñu ngi noonu soo amee say mbokk ñu jege la yàlla may la nga am alal nga la waay waroo leen a seetaan ñuy tumuranke war nga leen a jàppale sa kémtaleel kattan koo xam ne sa bànneex ba bànneexam la sa naqar naqaram la la la yàlla wërsëgal da nga koy bokk ak moom moo tax wala fi tudd ko mbokk mbokk googu buñ ko yemele ci deret rek mbokk mooy ñoo bokk ñoo bokk suñu alal bokk suñu lépp loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mooy ita isul qurba jox jege ñaale yi la nga xam ne mooy seen àq ci alal ji àq ci ziyaara leen àq ci laayi leen biir àq ci lépp lu mën a doon ñetti ndigal yi mbokk ku ko dajale rek baax nga képp ko maandu rafetal sa digganteeg sa boroom rafetal sa digganteeg say moroom jege la la nga xam ne mooy say mbokk baax nga ñetteelu yi yàlla tere mooy lan wa yanha anil fahsha yàlla ngi bañ ñaawteef ñaawteef mooy loo xam ni borom xel mu rafet bu ko bu ko dégg xam ni rafetul gaa yi njaaloo ndax yéefir yi bëgg nañ ko abadan góor jigéen ndax yéefir yi bëgg nañ ko mooy yéefir yi seen xel yàquwul loolu mi ngi noonu de soo demee da ngay gis ne yéefir yi seen xel yàquwul ñoom ñëpp dañuy combattre góor jigéen la nga xam ne mooy naan di daanu ci mbedd mi naka noonu la nga xamee ne mooy rey nit ku lu deful dara naka noonu yooyu yëpp ay fahsha la munkar nag mooy lépp lu yàlla subhanahu wa taala dégle boo ko bàyyee def nga munkar lépp lu yàlla tere soo ko defee def nga munkar loolu tax julit ñi seen taxawaay ci kaw suuf ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar te mooy tere lépp loo xam ne yàlla subhanahu wa taala da koo tere mooy kon borom bi mi ngi tere fahsha wal munkar borom boobu subhanahu wa taala it mi ngi tere bew al baghi mooy tooñ doomu aadama yi ci gàttal da nga koo tooñ wan ko sa doole da nga koo tooñ ñax ko ci alalam da nga koo tooñ yàq ab deram da nga koo tooñ ci lu mën a doon loolee sunu borom yàlla bëgg ko yàlla dafay tere loolu digal la ñett tere la ñett borom bi nag mu ne lii wax naa leen ko ngir ngeen di mën a fàttaliku te mooy jurit foo mën a toll ca marché ba sa biir kër ca palais ba ca tribunal ba foo mën a nekk fàttalikul ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan foo mën a nekk fàttalikul ne inna allaha yanha anil fahshai wal munkari wal baghi lii boo ko bàyyee xel da nga bokk ci nit ñi gën ci kaw suuf yal na yàlla boole ñu ci ñooñee borom bi daal di ne na ngeen matal digu yàlla bi su ngeen diggante te bu leen firi seeni ngiñ gannaaw ba ngeen ko feddalee te xam ne yàlla mi nga xam li ngeen di def mbokk ab julit bu ñuy jëflante ba waatante ci ku ñu war a waat mooy ci yàlla man kaana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut julit ci yàlla lay seedaloo lay waate sooy waat nga ne billahi li muy firi mooy maa ngi lay seedeel ne yàlla xam na ne li ma lay wax dëgg la su ko defee julit da nga ko war a gëm kon kooku yow boo ko waree ndax waa ji kese nga tooñ déedéet tooñ nga ko tooñ nga sa borom am déet moo tax sunu borom mu ne def ngeen yàlla mu nekk garanti kon kay xam leen ne yàlla xam ne li ngeen di def mu ne bu leen mel ne ndaw si nga xam ne daa xëy suba di rabb di rabb di rabb di rabb di rabb ba ngoon jot mu commencé di firi lam rabboon di firi lam rabboon di firi lam rabboon ñaari coono dikkal na ko mooy rabb na ba sonn firi ba sonn lan la ci jëlee dara loolu it kon yow julit soo xisee ba nekk ci yoon wu baax maytul di dellu gannaaw di yàq la nga xam ne defoon nga ko rawatina lu daan dal leen ci nafiq yi arab yi daan doog a tuub islam day am ndam ñu ñëw ne tuub nañ dugg nañ ay julit am benn bataille bu islam jekk di ñu dem firi dem ca ña nga xam ne ñoo gañal islam daal di ànd ak moom gars yi loolu lu mu leen di fàttali yéen sénégalais yi am na lu ngeen di tuddee transhumance di loolu ngeen koy tuddee mi ngi noonu mooy da ngay gis ñoo xam ne nii ñañuy àndal mooy fa doole ja nekk rek tey ña nga parti bi daanu na bàyyi nañ ko dem feneen daanu na bàyyi nañ ko dem feneen mbokk jullit du mel noonu yonent bi alayhi salaam nee na ki yàlla gën a bañ ci doomu aadama yi muy zuwaj xay ni borom ñaari kanam ki mel nii tey ëllëg nga mel nii loolu mandarga nafiq la mu zabzabina bayna zalik la ilaha ula wala ilaha ula jullit du mel noonu sun maam yi bokk na luñ leen daan teggee luñ xis ba wax dee rek moo leen ciy jële loolu ñu xam loolu de loolu tubaab bi moo ñuy indil y a pas de morale en politique waaye yow avant tubaab bi di ñëw xamal ne sénégalais nga xamal ni jullit nga say wax danga ko war a sàmm moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yàlla moo leen di nattoo tey mu yëkkati lislaam ëllëg gi sibir mu yëkkati ay yéeféer loolee bu mu tax ngeen changé abadan xamal ne yàlla subhanahu wa taala dana leen masa dajale lu ngeen juyoo woon yàlla wax leen ko te loolu it mbokk mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala noonu la bëggee doomu aadama bi bañ a fecci kóllëre même bu doon tane ne da ngay jëflante ak yéeféer borom bi it subhanahu wa taala ni su ma neexoon yéen ñëpp ma def leen benn giir ñun ñëpp su neexoon yàlla mu def ñu ay shayatin ci kaw suuf bu ñu dee mu yóbbu ñu sawara ku ko jox demande explication kenn su ko neexoon ñëpp mu def ñu comme ay malaaka waaye loolu neexul yàlla xam nga lu ko neex hëdaynaahu najdayni dafay tëral ñaari yoon na gaa yi ak ci dem leen may naa leen xel dem leen mi ngi noonu képp ku def ay góor-góorlu bëgg a jub suñu borom jàppale la nga jub képp koo xam ne da ngaa féeteerlu ci yoonu réer suñu borom seetaan la nga réer loolu tax ku jub moo la jubal ku réer moo la réeral ndax amoon na kattan jubal la waaye loolu neexu ko la ko neex mooy may ñu autonomie ne isalu ma imalu ma shitum loolu leen neex def leen loolee kon moo tax ba yow jullit fukk yoon ak juróom-ñaar ci lum néew néew da nga taxaw ci kanam borom bi ne ko lan ihdina sirat al mustaqim yàlla maadaama yaay jubal yàlla na ñu boole te ña nga xamee ne nii ah mooy ña nga jubal borom bi daal di tëjee nag ne lu leen neex def leen waaye wala tusalunna amma kuntum taamaloon lépp loo mën a def ci kaw suuf yawmal qiyaama yàlla dana la ne ne ay yow sëñ diw bis sangam day yaa defoon nangam ak nangam lu tax nga def ko loolee mbokk di benn réponse boo xam ne ku nekk ci ñun war na ko waajal lépp loo xam ne yaa ngi koy nar a def xalaatal ëllëg boo demee ci kanamu boroom ba borom bi laaj ne lu taxoon nga def lii yal na yàlla yërëm sunu baay Abdul Aziz ma fi jógee dabbaax yal na yàlla yërëm ko yéen a ngi fàttali ko woote ba mu woote woon ci zawi El Hadj Malick aay ba ba muy nettali lu nuroog aay bi ca la xaacoo ba conférence ba fa la yem te booba mi ngi wax ne képp koo xam ne yaa ngi féete ak foo mën a féete décision boo mën a jël xoolal lan lay jural bis boo taxee ci kanamu yàlla yàlla jël laaj ma yow lu taxoon nga jël décision sàngam lu taxoon nga def nangam yàlla na yàlla dépp la ñoo ngërëmam
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تجعلوا واشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wala tattaxizu aymanakum daxalam baynakum bu leen jàpp mukk seen waat yi mu nekk ak wooraate ci seen gu ngeen di duggante seen diggante fa tazila qadamum ba'da subutiha kon day dana tarxis ndëggu gannaaw ba mu saxee wa tazuqu suu'a bima sadadtum an sabilillah ca bu keroogee da ngeen mos aw ñaawteef lu bon ca fegaate ga ngeen doon fegaate ci yoonu yàlla walakum azabun azim ca dana leen ñeel mbugal bu màgg wala tashtaru bi ahdi llahi samanan qalila ngalla waay bu leen jëndi digub yàlla bi njëggu néew innama inda allahi huwa xayrun lakum la nekk di leen xaar ci yàlla moo gën ñeel leen in kuntum taalamuun su ngeen nekkoon di ko xam ma indakum yanfad lépp lu nekk ci yéen day mas a jeex wa ma inda allahi baaq amma lay des sa yàlla day sax wala najziyanna alladina sabaru sikk amul ci ne daañ fay ña nga xam ne dañoo muñoon ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun daañ leen fay seen pay ci lu gën a rafet lañ nekkoon di ko jëf man amila salihan min zakarin aw unsa képp ku def jëf ju baax na doon góor la wala jigéen wa huwa mu'min ca boobee mu ànd ci ak ngëm yàlla fala nuxiyannahu xayaatan tayiba ku mel noonu de daañ ko dundal dund gu teeyi wala najziyannahum ajrahum te daañ leen fay seen payya bi ahsani ma kaanu yaamaloon ca lu gën a rafet ca la nga xam ne nekkoon nañ di ko jëf mbokk sunu boroom ab julit bu xisee ba fasante kóllëre ngalla waay kóllëre googu waru ko def occasion ngir di woraate sunu borom mu ne loolu bu ngeen ko defee da ngeen wàcc yoonu siraatal mustaqim te it da ngeen mos mbugal ci fekk gi ngeen di fekk ci yoonu yàlla lu waral loolu mbokk bari na tey julit ñu bari ñu tax julit ñi tax yéeféer yi dugguñu ci lislaam ngir seen comportement bal am na sax ñuñ ci génne loolee ñu bàyyi ci xel bu baax looloo tax ba tey yow boo demoon ci dëkk yéeféer nga gis ne yaa nga fa nekk doon ko maandu doon ko correct ku rafet jëfin heure buñ ñee kii lu mu gëm ñu ne jurit la lu ñu wax ah l'islam day baax na waaye liy gaa yi nettali lu siiw ñu ne benn américain dafa gëstu woon ba dugg ci l'islam léegi nag mu ne xam naa ko dem dëkk julit ña day dana doon àjjanay kaw suuf nee nañ mu dem Égypte ay fan la fa def daa di ne maa ngi sant yàlla mi ma won l'islam avant may xam julit ñi tey bu ñëwoon Sénégal ma raw fi encore gis ngeen su ko defee kon ndekete julit ñi seen comportement bu rafet dañ ciy woote jëme ci l'islam waaye seen comportement bu bon dañ ciy dàq nit ñi jëme ci l'islam loolu it yow jeune julit xamal loolu yaa ngi marché yaa ngi usine yaa ngi service foo mën a doon di woote wal islam imma yaa ngi xemmemloo ay nit wala yaa ngi dàq ay nit ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax looloo tax même booy jëflante ak yéeféer fexeel matal la nga xam ne mooy seen dég ki nga xam ne mooy Muawiya ibn Abi Sufyan jiite woon julit ñi booba dafa am pacte bu ñu siñeente woon ak waa Ruum fi nga xam ne mooy l'empire romaine fi Italie nekk léegi ak gox yu bari ñu siñeente ay diir duñu xeex biñ demee ba pacte bi def ay fan Ma'wiya daal di digal jox ordre armée l'islam ne nañ dem camper ci frontière Rome pour bu ñëwee jour bi armée bi ah, pacte bi jeex na rek ñu jëkk leen a attaqué mu am benn sahaaba bu ñuy wax Umar ibn Anbasa bi mu dajeeg armée bi daal di ne waaw fu ñu jëm ñu ne dañuy dem camper ji frontière Rome mu ne waaw mu dem ci Muawiya mooy buur bi kat na ko waaw di dañoo siñante woon ne masalan ba premier jour ci ah, la nga xamee ni mooy koor ñu ne waaw waaye dama bëgg ñu camper seen frontière ngir ñu njëkk leen attaqué mu ne ko loolu ak wor la loolu ak wor la ndax déplacé jëm ci guerre ci guerre la bokk am déet maa wii ne wax nga dëgg jox ordre généraux yépp ne replié wu leen te boobu ay yéeféer lañu doon seqal looloo tax mbokk ay jeunes dem feneen naan tubaab yi ñoo fi ñëwoon not sun maam yi kaza wa kaza ba tax tubaab buñ dajee lu leen neex def ko loolu ëpp naa def yow jullit foo mën a nekk wooneel comportement bu rafet ci l'islam te xam ne li say jëf di wax moo gën a màgg li sa làmmiñ di wax te bàyyi xel loolu bu baax moo tax suñu borom nag ne ne su ngeen fexee ba jël ka- la nga xam ne mooy kaddu yàlla gi di ko wax ba pare nekk ay workat ba tax keneen duggul ci lislaam ku mel noone loolee danaa leen mbugal ngir loolu borom bi nag mu ne bu leen jëndee li ma leen dig njëggu néew yéen julit li ma leen dig mooy aljanna bu leen ko jënd njëggu néew gaa yi leen mooy njëggu néew mooy àdduna ak li ci biiram loolu lu néew la par rapport ak alaxira yonent bi alayhi salaam joxe ci misaal boo xam ne ku nekk ci yéen na dem def ko nee na soo bëggee xam xiiwal yi nekk ci àdduna mboola seen ak la yàlla dig jullit ñi ci àjjana da ngay dem géej nga jël sa baaraam samp ci biir géej gi li takk sa loxo loolu muy xiiwalu àdduna li des ci géej gi mooy aljanna ndax c'est comparable abadan gis ngeen loolu kon lu mu mën a doon bu la ko sa diina jaral abadan bu la ko sa diina jaral lu tax borom bi nee na maa indakum yanfad wa maa inda allahi baax lépp loo xam ne dafa nekk ci yéen dafay jeex mi ngi noonu lu nekk ci yéen rek day mas a jeex yàlla na yàlla yërëm Harun Rashid Harun Rashid kenn la woon ci bëri jullit ñi ci Banu Abbas gis nañu ne nguuram yaatu woon na ba dañ naan daana toog ci palais bi gis benn xiin mu ne xiin bi fu la neex tawal waaye la nga xam ne mooy xaraaj mooy sa impôt daañu mu ko indil fii ndax nguuru islam ni mu yaatoo nee nañ ba mu demee bay jege sukuraat def na gaa yi dem leen ngeen gas sama bàmmeel gaa yi gas bàmmeelam mu ne yenu leen ma yóbbu ma xool bàmmeel bi yóbbu ko ba ci armeel mu xool bàmmeel bi ni ci sama nguur gi yëpp fii lay mujj gis ngeen daa ne ay yàlla yow mi nga xam ne sa nguur du jeex ba faw yërëmal sa jàmm bu ñàkk solo bi nga xam ne nguuram jeex na gis ngeen loolu moo tax ay yow président ministre gouverneur koo mën a doon yàlla dalaa abal lu tuuti rek léegi mu nangu ko gis ngeen maa indakum yan fad lu ngeen mën a yor ci xéewal ci milliard day mas a jeex rek bismillah milliard sangam milliardaire sangam dee na gaa yi ana jiili mbay ana jógo kebe ndax nit mën na leen dab ci Sénégal yàlla na yàlla yërëm leen waaye pour wone ne la leen fi jële du la fi bàyyi yow tamit kon maa indakum yan fat lu ngeen mën a yor ci nguur ci alal ci taar ci lu mën doon yan fat amma alaxira du jeex ba faw xaalidina fiha abadan muy aljanna gis ngeen borom bi nag ne loolu ñan ñoo ca yegg mooy ñiy muñ gaa yi àddina ñiy muñ ko moom de moo tax sunu borom ni wala najziyanna ñi nga su sunu borom yàlla subhanahu wa taala kon mu ne lazina sabaru wala najziyanna lazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu yamalun ñi nga xam ne dañoo muñ nan mooy muñ mooy ñu muñ xam ne àdduna lee mu jeex seen digganteeg dee ñu muñ ko lu ñu fay muñ ñetti façon muñ la mbokk muñ ñetti wàll la mooy muñ ba def santaane borom bi muñal ba doo faat julli muñal ba doo faat koor muñal ba bàyyi say projet lu mu rëy rëy rëy dem màkk bu dee am nga ci kattan muñal des ndigali yàlla yi benn ngoog ñaareel bi muñal li yàlla xaraamal ci yow nekk nga place bu wéet Miss Sénégal fekk la fa nga la waay muñ ko kees a ngi nii yomb lool mën nga cee jël ay millions kenn du yëg nga la waay muñal loolu benn waaye ngi nii xëy na ah mën nga koo noggatu waaye muñal loolu mooy lépp loo xam ne yàlla xaraamal na ko muñ ko ñetteelu muñ bi mooy lan dogal yi yàlla teg ci yow ci mënoo ci dara da nga feebar mënoo ci dara daal la wax sa doom dee na mënoo ci dara daal la wax sa soxna dee na mënoo ci dara su neexoon yàlla mu jël sa loxo mënoo ci dara su neexeen yàlla mu taal sa kër mënoo ci dara loolu ay dogal la yu jóge ci yàlla muñ ko muñ ko rafet sunu borom ñu ne ñi nga xam ne dañoo muñoon day danaa leen fay seen jëf ci lu gën a màgg lañ doon jëf borom bi nag subhanahu wa taala ne képp koo xam ne yaa ngi def lu baax ah yàlla ndax góor ñi rek sun borom mu ne déedéet kii def lu baax ci góor ñi ak kii def lu baax ci jigéen ñi ndax aay ba fa la yem déedéet wa huwa mu'min waaye mu boole ci gëm yàlla bañ ko bokkaaleeg dara gaa yi la tax yàlla di nangu ay ñaan mooy ci benn raay lay jaar saxaar ci raay lay jaar n'est-ce pas mooy ñaari raay la benn bi mooy al imaanu saxiix bu ci des mooy al amalu saalix mooy da ngay jëf jëf bu baax waaye ba nga koy def nga gëm yàlla yéeféer lu mu mën a defal yàlla yàlla gisu ko am déet médecin sans frontière milliardaire la bu joxe lu ko neex maadaama gëmul yàlla égal zéro waaye yow it bul wax ne man gëm naa yàlla wa salaam laa bokk julit gëm naa yàlla wa salaam loolee da ngay gis ne am nañ jeunes yoo xam ne noonu lañ jàppe seen diine wallahi am na ni ngi noonu daje naa cee kenn jataay bu yàgg lu mu wax mooy non boo xasee ba gëm yàlla rek baax nga mooy ci des yëpp c'est des futilités quoi gis ngeen loolee mbokk ëpp naa def da ngay gëm yàlla ca gëm yàlla ga baaxul gaa yi gëm yàlla gu wóor dana am nga gëm ne alquran yàlla ko wàcce yàlla ne dem leen julli ba pare nga bañ a julli yàlla na woor leen nga bañ a woor ba pare ngeen ñu gëm yàlla gi baax na baaxul wallahi kon il faut nga boole gëm yàlla ak jëf lu baax sunu borom mu ne lu mu ñu ci may mu ne xayaatan tayiba adduna lay commencé danaa la muy dund gu tey nga am équilibre am dal même bu doon te ne yow yaa ngi nekkoon Tambacounda ca néegu ñax ya yàlla day dalal sa xol nga am bànneexu dund am maa ki safaanoog ngëm yàlla ne nekk ci biir gratte-ciel ya nekk New York nekk PDG société ba fa gën a rëy mi nga ànd ak stress mi nga ànd ak jaaxle balaa nelaw day naan ay doom am déet mi nga noonu sunu mbokk ba am pate ba mës na ko wax ci UNESCO mu ne pourtant day yéen a ngi yërëm Afrique mais am nañ trésor boo xam ne yéen amu leen ko yéen seen ñi ëpp ci yéen bala ñoo naan ay doom bala ñoo nelaw dañoo naani doom ne waxoon ñaata tonne la américains yi naan par at da ngay yéemu ci yàlla mu ne ñun nag Afrique da ngay gis benn màgget bu dem àll ba taxani taxani ba ñëw de say yum taxan te lay tëdd nelaw ba xandoor gis ngeen lu tax ndax dañu am xel mu dal loolee mbokk lu ñu ko may mooy ngëm yàlla gëm yàlla damaa ñàkk gëm naa yàlla jeex na damaa feebar gëm naa yàlla lu mu mën a doon gëm naa yàlla moom la borom bi ne ki gëm yàlla tey def lu baax danaa ko dundal dund ko tey ci kaw suuf mi ngi noonu may ko tawfiq ci njabootam may ko tawfiq lam am lum néew ko bari gannaaw ba it fay ko ca lu gën la nga xam ne mu la doon jëf ca mbokk loolu muy aljanna bi ahsani ma kaanu yamaluun bis boo demee aljanna loo mosoon defal yàlla da nga ko xeeb mi ngi noonu booy bis boo demee aljanna loo mënoon a defal yàlla da nga ko xeeb doonte ne am na lenn ci mufassiroon yi koy firee bi ahsani ma kaanu yaamaloon ay yàlla day xool jëf bañ gënoon a baax seen jëf yàlla faye leen ci jëf boobee mooy sa mboolu mi julli dañu xool julli ba ci gën a baax yàlla basé jël not ba séddale ko julli yépp sarax yi nga mës a génn sarax ba ci gën a sell gën caa baax yàlla jël sarax yépp defe ko noonu koor ga naka noonu aj ga naka noonu mi ngi noonu ala kulli xaal ñaar yépp benn la résultat ba mooy yàlla da lay defal aljan mu nekk sa wàccuwaay borom bi subhanahu wa taala kon loolu moom la wax waaye nañu xam ne la koy maye mooy as-sabr yàlla na yàlla may ñu muñ gu rafet فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين سنبروم سبحانه وتعالى مني فإذا قرأت القرآن اربو جوجي دي جنگ القرآن fastaiz billahi min asheytaani rajim na nga sàkku mucc ci yàlla mooy sàkku musloo ci yàlla ngiree nga mucc ci cheytaan ma nga xam ne dañ koo sànni génn ko ci ngërëmal yàlla innahu laysa lahu sultaanun ala allazina amanu cheytaana boobu ñeelu ko benn lay benn kattan ca ña nga xam ne dañoo gëm yàlla wa ala rabbihim yatawakkaluun ba pare di wékku ci seen borom subhanahu wa taala innama sultaanuhu la nga xam ne mooy ay layam kay kattanam nga ala allazina yatawallawnahu ma ngay ànd ak ña nga xam ne dañ koo féetewoo walazina hum bihi mushrikuun ak ñi nga xam ne ci cheytaane moom la ñuy bokkaaleeg seen borom wa ida baddalna ayatan makana aya heure bu ñu soppee benn aaya ci place beneen aaya wallahu a'lamu bima yunazzil donte ne yàlla moo gën a xam li muy wàcce qaalu innama anta muftar ñu ne ko yow da ngay dooral sunu borom rek bal aktharuhum la ya'lamun waaye la am may la ëpp ci ñoom day xamuñu qul nazzalahu ruuhul qudus min rabbika bil haqq neel alquran jii kay wàcce na ko ruux gu sell ga muy jibril alayhi salaam mi ngi jóge sa boroom te bi muy wàcc wàcc na ci dëgg li yusabbita allazina amanu ngiree ñu saxal ca ña nga xamee ne nii dañoo gëm seen boroom wa hudan wa bushra lil muslimin mu nekk njub nekk mbég ñel ñi nga xam ne dañoo jébbalul seen boroom mbokk sunu boroom gis nañu téere bi lim ci bëgg mooy ñu koy jàng waaye ndax jàng gi rek mooy nekk jubluwaay bi na am jàng gi lu baax la sunu borom mu ne inna allazina yatluna kitaab allahi ba baa fa muy waxe ne yarjuna tiyaaratan lan tabuur jàng téereb yàlla bi lu baax la waaye mbokk jànginu téereb yàlla bi it dañ ko war a bàyyi xel mooy di ko jàng ci settantal di ka jàng ci tadabburu loole la yàlla bëgg mi ngi noonu kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun li yudabbaru ayati maa ko wàcce ngir ñu koy setantal waaye da ngay gis tey lu bari ci jëriñ ñi niñ koy jàngi mooy tarararararararar mel ne machine buy way rek am na ñoo xam ne jàpp nañ ne guddi gu nekk war nañ caa wàcce kaamil am na ñu dem ba daan sax ñaari kaamil mbokk loolu taxuloon alquran wàcc alquran dañ koy wàcc di ko setantal su ko defee cheytaane soo demoon ba toog ci jàkka ji ubbi téere bi yàlla bi ndax mucc nga ci cheytaan déedéet booy commencé dal rek mu commencé la fàttali tool ba marché ba ila axiri looloo tax ba bala ngaa jàng alquran waxal auzu billahi min alcheytaan rajim na nga muslu ci cheytaane moo gën a yey sax bismillahi arrahmani arrahim ndax xam ngeen ne booy jàng alquran ca commencé woo bopp saar da nga naan auzu billahi min ashitani rajim rek daal di continuer comme boo doon jàng tey suratu baraa muy tawba da nga naan auzu billahi min ashitani rajim rek daal di continuer lu tax ngir cheytaan day dox sa digganteeg fàttaliku rawatina nag bu dee da ngaa nekk ci fa alquran gën a màgge muy fa nga xamee ne fa ngay jullee fa nga xamee ne fa ngay jullee borom bi subhanahu wa taala nag daal di ne cheytaane boobu de amul benn kattan ci ñi nga xam ne dañoo gëm ba pare di wékku seen boroom mbokk ñii rek ñoo mucc ci cheytaane cheytaane kenn mënta xeex ak moom moo tax sunu yeneen ci daan ñu tere ñu koy rëbb ak nangam nañ ñaan yàlla musal ñu ci moom rek amma boo ñaane yàlla musal la ci moom bu la yàlla musalee rek nga mucc looloo tax ba dañu naan soo daje woon ak benn waay mu yor benn ab berger allemand xaj bu rëy rëy rëy xaj bi riir wul si la la gën a nekk xel au lieu que ngay xeex xaj bi nga ne borom xaj bi dimbali ma sa xaj bi am déet ndax moom bu ne ko assuré mu taxaw am déet loolee ko nit ki la moom moom cheytaan mooy sa borom jalla wa ala looloo tax musulul ci cheytaan loolu moo tax yonent bi alayhi salaam nee na kii génn këram wax bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ko mel noonu cheytaan yi dañ koy daw innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun kon ñan ñooy wàllu seytaane ci jaamu yàlla yi sunu boroom ne ñay wàllu seytaane ci jaamu yàlla yi mooy ñi nga xam ne dañuy féetewoog seytaane buxaabakat ya njabarkat ya ñay bokkaale ak seen boroom ñoo ñii seytaane day am ci ñoom la nga xamee ne moom mooy wàll di mbir boo xam ne nii ku ne ci ñun na góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax borom bi mbokk bi yonent bi alayhi salaam di dund da daan indi benn aay ba mu neex ko mu changé daa di indi beneen aaya bu ko soppi donte ne bariwul ci téereb yàlla bi mooy liñ tuddee an naasix wal mansuux bokk na lu ngeen ci xam yàlla santoon na ko muy jublu masjidul aqsa gannaaw ba mu ne ko na jublu masjidul haram sunu borom yàlla gis nañu ne daana wax ne walazina aqadat aymanu ay aymanukum fa atuhum nasibahum mooy ba ñuy commencement l'islam sahaaba yi bokkul dara dañ daan dem di donnante ngir dañoo doon ay doomi ndey borom bi mujj bàyyi loolu daan ne wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd loolu xëy na beneen waxtaan la mooy aaya yi nga xam ne amoon na ak aaya yi koy folli am na yoo xam ne dañuy folli atte bi doonte ne njàng mi mi ngi fi continuer sax am na yoo xam ne nii dañoo dind aaya bi doonte ne atte bi moom mi ngi fi comme ku njaaloo nañ ko rey aaya la woon suñu borom dindi ko bàyyi fi atte bi ila axiri kon loolu beneen waxtaan la waaye lan la ci naafiq yi daan profité ak yéefér yu bon yi mooy ah waaye lii yeneen bi moo ko wax rek ndax yàlla bu xisee ba wax jeex na suñu borom yàlla nag ne déedéet yàlla moo gën a xam li muy wàcce waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu te mooy yàlla mooy nattu ay jaamam su leen waxee jaamoo leen me nii doomu aadama li gën a jafe ci moom mooy changé am déet dañuy gis benn waay boo xam ne nii xam ne ni lii mooy dëgg masalan bari na lu ñu koy wax ci sunna xam ne moo dëgg mais nag man ba mu juddoo ba tey nii lay def ñu xëy xëy bëgg maa changé loo loolee dafa metti ci doomu aadama sunu borom nag ngir nattu ay jaamam moo tax muy changé lu ko neex wallahu alamu bi ma yunazil te it moo gën a xam lu tax muy def ak loolu ay jaamam borom bu ne déedéet lii day du muhammad moo ko sos bal ki ko wàcce mooy ruuxul qudus muy jibril alayhi salaam jibril moomu moo ko wàcce te ba mu koy wàcce ci dëgg la koy wàcce ay naka ko yàlla waxe noonu la ko joxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yi tey dem nañ ba yàlla may doomu aadama xam-xam portable bi li may wax lépp mi ngi koy jël su génnoon léegi mën naa daje koo xam ne ñëwul woon ci jàkka ji mu wàcce ko ci moom ca benn tisoli sax du ci manqué am déet loolee doomu adama def na ko naka nu ne jibril alayhi salaam na ko yàlla jàngale alquran noonu la ko wàccee ci xolu yonent bi alayhi salatu wasalaam dara manqué wu ci dara yokku wu ci nazalahu ala qalbik ki nga xam ne mooy ruhul quds moo ko wàcc ci dëgg lu tax alquran wàcc mooy benn ngir dëgëral julit ñi gaa yi alquran mooy delluwaayu julit da ngaa jaaxle boo jàngee alquran rek sa xol dal mi ngi noonu yow miñ tëj kaso yonent yàlla yusufa ñaata la def ci kaso sama doom dafa réer yonent yàlla yanquba ma nga ne dama feebar ayuba alayhi salaam ma nga ne le yàlla nattoo ko juróom-ñaari at feebar yu tara tara tara tar xoolal yonent yi nga xam ne dañ leen a rey yonent yi nga xam ne dañ leen a génne loolee kon dalay dalal ca itamit nga xam li yàlla diggaate loolee tamit day tax nga gën a dëgër looloo tax ba am na benn xare bu mag bu ñuy wax xazootu yamaama bañ demee ba mbir yee ñàng ba ñàng di histoire bu ndaw ñëpp war a jàng am na ki nga xamee ni ni mooy abdullah ibn abi xuzafa mooy mawla mooy salim mawla abi xuzafa salim mawla abi xuzafa ay yéen xale yi xam ronaldo ko maradona je ne sais pas là ngal waa jàppaleen tur boobu moo ñëw ci général d'armée bi xaalid ibn walid ne ko dañoo bëgg ñun ñi mokkal alquran nga wutal ñu sunu mbooloo bopp bam ba leen xaalid béree mu ne yaa ahla alquran zayinu alquran bi amalikum et yéen nañu alquran ca jàkka ja dañ doon neexal alquran ci suñuy làmmiñ tey nag taaral leen alquran ci seen i jëf ñoom ñoo jiitu seen détachement boobu bañ demee ca la ñu dàq ka nga xam ne musalamatul kazzab ak nombre ba mu amoon juróomi téeméer daaw na ci ñoom loolu moo tax ba tey alquran ñu dajale ko bind ko kon xam alquran xam liggéey ci nekk day tax jurit bi dëgër jurit bu sax amul lay déranger yéeféer bi wala naafiq bi loole moom du ko ca fekk li ci sabbati lazina amanu waaye it mu nekk la ñu waxoon sànq mooy hudan njub la bu ñuy jaamu yàlla waaye mu nekk bushra bégal buy bégal julit ci ne yow day lii boo ci saxee àjjana nga jëm bépp julit bu dee yàlla alquran àjjana la jëm yal na yàlla def ñu ñu bokk ña ñi aljanna mi ngi noonu donte ne ne loolu du tax sa mbokk julit dee nga dogg ne àjjana la jëm dañ naan julit bu dee yàlla ngëm àjjana la jëm duñ ca teg kenn say mi ngi mel ni rek tey yéefér yi ku dee yàlla kéefér it dañ naan dee yàlla na kéefér te ku dee yàlla kéefér ñu ne safara la jëm waaye duñ ne diw mi safara la jëm loolee dañuy gis ne même bu doonte ne am na léeg-léeg yenn waxtaan yu ñu daan def mën na am mere gu ñu meree ku mel ne Ariel Sharon wala mere gu ñu mere kenn ba tax ñu wax ci moom safara it mbokk nañu xam ne loolee nekkul lu jaaru donte ne ki nga xam ne mooy Saad ibn Abi Waqas nee na mas naa toog ak yonente bi alayhi salatu wasalaam benn kaw kaw ñëw na ko waaw man sama bàyyi dafa baaxoon da daan def nangam da daan def nangam waaw sama bàyyi fu mu nekk yonente bi ne ko huwa fi naar safara la jëm waa ji mer na ko yow nag sa bàyyi fu mu nekk mu ne sama bàyyi safara la jëm haysuma marata bi qabri kafir fa bashiruhu bin naar foo romb bàmmilu yéefar bégal ko sawara mu daana wax ne yonent bi sant na ma lu jafe-jafe-jafe musuma romb bàmmilu yéefar dul naa na ko bégal de safaraa ngi lay xaar waaye ala kulli xaal la gën a mucc ayib nañu wax ne képp ku deyaale kéefér safara la jëm waaye bu ñu wax kenn jaar ci turam ne day dem sawara bu ñu wax it kenn ci julit ñi jaar ci turam ne ma nga aljanna comme niñ koy dégg suñu roy suñu rajo yi ak suñu télévision yi yàlla na yàlla defal ñu ñëpp àjjana mi suñu wàccuwaay balaa ñoo dem àjjana yàlla ñu dundal ci àdduna dund gu tey innahu qadirun ala zalik wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad boo xam ne dafa mas a dem ci seetkat naka la koy tuubee bal julit boo xam ne moom ci boppam sax seetkat la woon naka la koy tuubee mooy na sell ci xolam mooy na sell ci xolam tuub mooy lan la ca jiitu gën caa màgg mooy rëcc yeneen bi nee na an nadamatu tawba maadaama rëcc nga rëcc bu wér ne yàlla day lii ma daan def sama njaaloo ga sama rey ñet ga sama shirk ba sama seet ba bu démb doon tey duma ko def loolee yàlla baal na la gannaaw ba itamit nga bàyyi ca saasa la nga doon def doogu ne dootuma ko defeti lii la ci borom xam-xam yi di wax réccu nga la ca gannaaw bàyyi ko ca saasi dogu ne dootuma ko defeti su boobaa yàlla baal na la allahuma lu dul ni bu ca kalpe jàmbur bu àndee dellool kalpe bi it loolu ci tub gi la bokk gis ngeen mooy bokk na bu da àq doomu aadama nga daal di ko koy delloo danaa ci profité di wax sax ne alarba bi passé yàlla nattu nañu ñu jël fi ñaari portable mbokk loolu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ab jullit ca foog nañu ne mbooloo mi ay jullit rek a ci nekk ab jullit yeneen ci bàyyi salaam daana wax ne nga sàcc nga sàcc fukki sàcc ci àll ba moo gën nga sàcc sa dëkkandoo ndax sa dëkkandoo yaa ko war a aar war koo dimbali waaw xoolal nag mbokk ki jóge këram ñëw toog ci néegu yàlla bi di jël déglu téereb yàlla bi teg portable am nga jël ko musiba boobu ndax nit xam ne nu mu toll wallahi loolu musiba la su dee yàlla daf la nattoo nga ñàkkeet wala nga am problème ñaanal yàlla sabab loolu ne leen mais lu mel ni dalay alak dalay toroxal day tëj say buntu mbokk néegu yàlla deesu ci sàcc néegu yàlla soo ci mënul jël indi ngal la waaye bu fa ñëw di lor koo xam ne ni dafa nekk yonent bi alayhi salaam nee na ki jógee këram ñëw di xeeñ sax ay laat génne leen ko ndax day lor waa jàkka ji am déet waaw loolu koo xam ne nii pour xet bu naqari sax bëgguñu ne ko ci néegu yàlla bi nan ngay jëlee alal ci koo xam dafa ñëw ci néegu yàlla xam naa ne ña ko def mën na am wala fi dañ naan ñiy gàmmu seeg ñiy rees de bokkuñu waaye ala kulli xaal ku yàlla natt woon loolu na ko tuub wa man taaba taaba lahu alayh mi ngi noonu nee ne naan anaam waaw bismillah ki nga xam ne dafay wax ni maa waxoon waqet ndax yàlla moo man suuxal ay aaya moom na xam ne moom du yàlla gars yi yàlla mooy faalun li maa yurit am déet yàlla moo moom ay jaamam faalun li maa yurit mais yow doomu aadama da nga engagé wu ca yàlla moomu la moom bind la moo ne la bu leen firi seeni wax am déet loolu muy mbir bi mbokk yàlla kenn du ko méngale keneen fala tadribu lillahi al amsal loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax sunu borom yàlla lu mu def xikma la ca yàlla subhanahu wa taala su waxee wax leneen ndax war na ci kenn yàlla lum ñu wàcceel sunu njëriñ moo ca nekk sunu yokkute moo ca nekk waaye wax waxit boo xam ne indi na fukki bëkkan ak nangam dee ci réew mi ndax loolu wax yemoon ak wax yàlla loolee kon mbokk kenn du ko boole mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ni dafa nekk judduwul ci loo xam ne nii ci yoon islaam kam ka féete la muy waa kër yaayam loolee ci bu dee ku ko war a maye bu dee ku ko war a donn bu dee kum mën a doon loolee ñañ ko féetale mooy la nga xam ne mooy waa kër yaayam tey jii bu doon jabari jàmbur la doom ba ca juddoo yonent bi alayhi salaam dane al waladu lil firash dañ koy féetale kër ga nga xamee ne nii fa la borom kër ba ko doon denc kooku mooy ka nga féetewoo loolu allahuma lu dul mu dàq ko nañu xam ne daal yonente bi alayhi salatu wasallam la mu waxoon mooy al waladu lil firash wa lil ahir hajar ka nga xamee ne nii mooy doom ña ngi koy féetale wàllu ndeyam ka nga xam ne dafa ñëwoon njaaloo ak doomu jaaro ay xeer lañ ko war a dóor mu dem lii ñu bàyyi ci xel bu baax amma nag ñooñe nga xam ne di waa kër yaaya buñ gisee ne kii féete woone ne moom moo ko jur boole nañ ko ak moom tuum na lam defoon ñu céere la ko ko loola yi da ngay gis ne incha allah dara nekku ci wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw xam naa bismillah waaw mbokk est ce que jeexoon na question waaw ala kulli xaal waaw ñu mujj ci mbokk bala rek di ñaan ngeen jéggal ñu guddee bi bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ki dëkk ak njabarkat ni mu war a comporté woo ak moom mooy yeneen ci bi alayhi salaam la mu waxoon man raa minkum munkaran fal yughayyiruhu bi yadi kër gi yaa ko moom bu fi dëkk ak njabarkat am déet bu fi dëkk ak jaaykatub sàngara bu fi dëkk ak ay njaalookat ndax lu tax sa responsabilité la kër gi yaa ko moom soo gisoon ko fi dëkk bëgg a taal ay néegam doo ci d'accord kon heure boo amee sa kër war nga fexe ba loole nga bàyyi ko xel te loolu it ñu yàlla wërsëgal ñu am ay kër yu ñu luye it waaye ñu def ci seeni contrat ne man kat jullit laa sama kër bëgguma fi nangam bëgguma fi nangam bëgguma fi nangam ci loo xam ne neexul yàlla subhanahu wa taala léegi nag bu dee ne yow amoo droit kër gi moomuloo ko da nga fi luye mu luye fi masalan su boobaa li nga mën mooy laayu ko biir su dee laaya biir boobu day juru fitna su boobaa sa jan wàcc na na la naqari sa xol la muy def na la naqari sa xol bul lekk ci alalu njabaram bul jëflanteeg moom ci njabar su boobaa moom la nga xam ne mooy sa jan wàcc na ah naam ca yow boo mënee toxu nga ba ko fa ñaar yooyu moom mooy li nekk lu bon moom imma da ngay fexe mu teqalikoog yow la nga teqalikoog moom gis ngeen loolu moom mooy mbir bi ca loolu it mbokk nañu xam ne hijra gàddaay yéegul ci jóge ci réew dem ci réew gàddaay dana nekk jóge ci quartier dem ci quartier dana nekk jóge ci kër dem ci kër heure boo xamee ne ni dëkk nga fenn mbon am fa mënoo koo changer ngalla waay bàyyil place boobu dem ca place bu baax dëkk ak ñu baax day yokk sa ngëm di ko suuxat nekk ak ñu bon day delloo gannaaw sa ngëm loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla laabal ñu laabal sunu njaboot ak sunu société dundal ñu ci ngërëmam te dajale ñu ci àjjana ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad